sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 nooru daaray ni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen siyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nu ñu suñuy jaamu yàlla te jéggañu suñuy rëcc-rëcc ñu nuyu mbokk yëpp rekk di leen ziyaare di leen nuyoo boobu ak ziyaar bi di ko jaarale ci loxol kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jotal ñu ko mboolem mbokk yu sell yi ñu bokkal liggéey bu sell bii di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu doole noo jàppale ba ñu gën a mën a jublu ci liggéeyal sëñ bi gën a mën a liggéeyal sëñ bu baax a baax bi jaay saydi rujus sallallahu alayhi wa sallam kon tey suñu fatwa rek ñu jéem a tontu ci laaj yi nga xam ne yi moo fi jotorot laaj bi ñu tàmbalee tey kon jóge ci soxna Fatma Ndiaye ñu gën koo xam ci Cuba Ndiaye ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di ko siyaare sëriñam boobu nekkan ci bi lu bari lu yàgg di ñaan yàlla dolli tawfeex bu baax a baax di jaay Seydou bi sallallahu alayhi wa soxna si dafay waa dafay laaj ne maa xukmu wujudu shaxsi wa huwa aarim eh, fil xamaam waaw soxna si dafay laaj ne ndax eh, nit ki mën naa jàpp te surut ay yére maanaam def yaramu neen daal di jàpp xam naa mel ni sangoo pare rek ci wan bala ngay sol sa yére eh, nga jàpp loole wax mën naa nekk walla déet waaw dañ ko naan wuduu shaxsi wa huwa aalim fi wala ahada maahu jaizun wa waaw jàpp def yaramu neen fekk yaa ci biir wanag wa ci biir douche ba nekkoo fa ak kenn la wax ne loolu lu ñu maye la waaye itam lu wér la loolu maanaam lu mën a nekk la dara nekku ci bu fekkee ni jamono ji ko koy def moom dong nga fa nekk euh, loolu may nañ ko ko dara nekku ci jàpp mu wéra wér la daay rek dana wal afdalu tarkuhu li anna xalaal malabisi laa yanbaxi an yakuna illa fi waxtil xaajati ilayhi kal xusli mene nga bañ a def noonu maanaam bañ a def yaramu neen di jàpp maanaam sol ay yére jàpp daal ne ne moo gën ndax ne ne summi ay yére moom ne daanaka dañu koy tere lu dul ni dafa nekk ci waxtu woo xam danga da nga aajowoo summi sa yére yi lu mel ni boo dee sangu waaye itam dañu ko bañ rek noonu maanaam dañ ne moo gën daal maanaam nga solu yére di jàpp moo gën nga def yaramu neen di jàpp waaye nag def yaramu neen di jàpp daal dara néew ci lu mën a nekk la beneen laajam bi mu soxna Fatma ba tey dafay ne euh, dafa jox ab sëriñam hadiya daal maanaam am euh, xaalis boo xam ne bi da ko jël tudde ko hadiya ci bi mu ko jox ab sëriñam ñu ne ko yow loolu waroo ko def loolu itam dañ ko tëjanaan mu baaxun wa jaizun aha kay maanaam jël sa alal kay jox ko sab sëriñ hadiya loolu lu dagan la lu ñu maya la que soxna moom maanaam jigéen ab sëriñam maanaam jëkkëram moo di ab sëriñam te ab sëriñ nga di ko jox addiya day bokk ci la nga xam ne lii day am solo ci diggante boobu lool kon loolu nga def muy jël sa alal jooju jox ko sa jëkkër jooju te mooy sëb sëriñ lu baax la lu am solo lu ñu daganal la lu mën a nekk la ndax kat euh, jigéen moom dañ ne maanam ab euh, jëkkëram moo di ab sëriñam kon sa sëriñ boobu nga jox ko addiya loolu lu am solo la lu baax la yàlla yàlla nangu te doole def bu baax a baax barke ko Seexul Xadim yeneen laaj yi ci topp Modou Ngom ñing jëwriñu liggéey bi euh, moo ko fi jàllale si ci ne daa am mbokk moo xam ne bi moo ko jaarale ci moom di ko ko laaj laaj yi nag buñ koy xool day doon ñetti laaj yoo xam ni yëpp rek daanaka day wax ci lenn loo xam ne li daa xam naa dafa tombe mu nekk ñetti tomb rek su ko defee comme noonu mu ko laajee mu ñetti tomb rek bu ci nekk rek eh, dinañ ci am luñ ko ca leeral ci loo xam ne mooy toll ak liñ ci xam ak liñ ci jot a jàng ci wàllu woowu muy dafay laaj ne xukmu istimaali ma yasnahu luupi kathiyaab wal autour ne benn laaj bi day laaj jëfandikoo loo xam ne lii maanaam ak ngóor jigéen moo koy liggéey maanaam ngóor jigéen mooy borom ñaari tur yooyu la wax mooy ngóor jigéen rek ne kooku ndax lan mooy atteeb jëfandikoo ay yére yoo xam ne ñoom dañ koy defar wala ñu di ko jaay wala xeeñ ay lat ko jënd seeni lat koloñ yoo xam ne ñoom ñoo koy liggéey eh, ak yu mel noonu daal yooyu bagage bi liggéey waaw loolu dañ ko naan euh, jullit bi day euh, ñu mel noonu moom euh, ñu jara ba moytu lañu ñu jara néewal ab diggante la ab séq dara waaye jéem yàlla daa dogal mu nekk ci réew moo xam ne xañ na bari nañ fa bari boo xam ne bii mënee su leen moytu loolee ñuy defar ci ay yére daal dinañ la ko may nga di ko mën a jënd di ko mën a jëfandikoo ak seen atkalo yooyu ak yooyu ñu jëfandikoo yooyu muy lépp loo xam ne lii daal may nañ ko jullit mu di ko mën a jëfandikoo ci wàll googu dinañ may jullit bi maanaam bu jógee ci ñoom jëm ci jullit bi mu mën koo jëfandikoo ba mu des nag bu fekkee ni yére ya amut lenn yenn mandarga yu cay nekk yoo xam ni luy contre islam la wala luy tiliman islam wala lu koy gàkkal bu newut ci yére ya newut ci defuñu ko ab symbole maanaam ab xàmmee ko kay buñ koy xàmmee ci yére ya wala seen latkala yooyu ñu koy def ñu def ci loo xam ne lii ay mandargala yu mel noonu daal bu ci ëndiw amut moom euh, nga xam ne dafa nekk naturel ni ko lislaam nu ko rek mu di ay yére kese ñu di ko defar su boobaa loolu dañ ko may nga mën di ko jëfandikoo ci wàll googu ba tey muy laajaat comme ki nga xam ne kii daa yorob oto masalan ab taximan la di jël ay nit te nee na léeg-léeg it ñu mel noonu da di jël di leen yóbbu waaye mu leen di jël di la yóbbu doo xam ne ñii ay ngóor jigéen lañu wala kii ak ngóor jigéen la waaw loolu itam ba tey daanaka mooy coppile rek jéem yow koy sab oto ko yor di jël ay nit ñu lay fay maanaam nga gis nit rek mu taxaw noonu xamoo moom lu mu doon lu mu gëm di ko dund te xamoo boo ne am jigéen la su boobaa moom nga jël ko ci sa oto boobu dem ba ca yoon wa nag ngay doog xam ne kii kat moom la su boobaa it da ngay dem rek nag yóbbu ko fa nga xam ne fii fa ngeen waxante wan euh, noonu doo ngay mën a def ndax euh, jëm xamoon ne moom la euh, nga jël ko ba ngeen waxaale ba juboo da nga koy dem yóbbu ko rek. waaye kay lañuy bëgg mooy bu la leer ne moom moom la nga gis ko nii mu taxaw mu leer ne moom la moom dañ lay tere nga di ko jël di ko euh, transporter di ko yóbbu ca fa nga xam ne fii fa la jëm waaw ndax moom jullit bi moom lay Seydina Muhammad sallallahu alayhi euh, wax rek ne euh, inna allaha an ummati alxataa wa nisyaana wa mastukrihu alayhi si nga xamante ne sama xeet bi daal yàlla jéggal na leen euh, lépp loo xam ne dañ koy def ngir ak fàtte wala ñu def ko ngir ak njuumte wala ñu force leen jeeg ñu def ko ne boobaa euh, loolu may nañu euh, jéggal nañu ko sama xeet bi buñ ko kon daal xam naa réew mu mel noonu moom loolu tax yo la yogante waxam ne as-safaru qitaatun min al azab tukki moom dafa garaaw dafa bari affaire yoo xam ne yi loolu yoon di wax ne ak tukki dal wenn daggit la aw daggit la ci ci mbugal maanaam loolu moom tukkikat yi xam nañ ko bu baax a baax a baax a tey dafa wax ne bokk na ci dal yàlla defal la xewal gu mat a maanaam réew mi nga dëkk nga defa amee sa wërsëg kon ñooñu daal nga xam ne yàlla dari na nattu ñu dem bitim réew moom la war ci ñoom mooy ñu am pas-pas ak lislaam bu dëgër dëgër bu wér a wér boo xam ne bii dañuy jéem a dund lislaam te lépp loo xam ne bii xam nañ ne maanaam lu bokkul ci lislaam la wala ku bokkul ci lislaam ñu di leen jéem moytu di jéem a moytu loola bu baax a baax a baax seen kéemtalaay kàttan waaye tam lépp loo xam ne li leer na ne lii moom kii lii muy def bu dee nit jullit lu wax nga moom la maanaam maa ngi def loo xam ne lii charia da ko araamal Euh, ku mel noonu boo ko xamee nga moytu ko bu baax a baax a baax ba sa dugganteeg moom loo ko mën a gàtt rek lu mën a gàtt rek doyut loolu rek da nga cay jéem a góorgóorlu am pas xam ne islam moom mooy diine dëgg ji boo ko jéemee dundit yàlla dina la ca gën a jàppale bu baax a baax ba tey loolu muy wax ne da soxla ay kayit yoo xam ne yii béréb ba nga xam ne bii fa nga koy jële ca réew moomu nga nekk ñu mel ñoo fa nekk di ko joxe ba tey euh, day duggaat foofu rek moom daal jéem yàlla natuloo na ba nga dem ci réewu mel noonu te ñoom seeni programme daanaka ñoom noonu lañ koy doxale euh, doo mën lu dul mën lu mel ni kër yooyu nga xam ne boo ko amut foofu euh, doo ko mën a am boo ko amut moom kër yooyu mën na laa indil fitna wala mu indi lay jafe-jafe yoo xam ne maanaam dina indi loraange yu rëy rëy ci yow daal su boobaa it yow nga dem fexe yi jot say këyit ci ay charte yoo xam ne day tegu ci maanaam lépp lu ne la teg ca këyit ya ci loo xam ne li lu lay weddiloo sa diine la wala lu koy gàkkal la lu ko lu lu araam la nga fexe loolu moom ñu bañ la ko def loo te li jënd bañ jox la ko boo jëlee say këyit rek te moom tegu ñoo ci yenn charte yoo xam ni da lay weddiloo sa diine wala da lay def la loo def loo loo xam ne sa diine da la ko tere daal bu bu ci amut su boobaa mën ngaa dem foofu jël sa kër yooyu waaye nag buñ ko def bëgg a teg ci lenn loo xam ne da nga koy wax loo xam ne sa diine nugu ko wala nga di ko fa def moom su boobaa ak lu mu métti métti nag da war a mën jéem a sàkk beneen terrain moo xam ne nii noonu ngay def ndax Seydina Muhammad dane ad daruraat tubiixu al mahzuraat dina yi nga xam ne dañ koy tere su ñu demee ba loolu ñu lay tere bàyyi ga maanaam di la indil ay gàllankoor ak jafe ak ay loraange yu méttee métti ci yow ne ne su booba loolu ñu la doon tere dañ koy may comme wàllu kër yooyu jéem da ngay dem ba ta ñàkk te boo ko amul fitna ju rëy rëy mën na caa am mën nga caa am ak gàllankoor goo xam ne gi dalay dal yow métti ci yow waaye te mën a dem ba laal sa njaboot gi nga xam ne gii ñu ngi toog di la xaar su boobaa nga dem jël kayit yooyu te jéem a sàmm sa diine bu baax a baax nit daal ab jullit rawatina ab taalibe su ko yàlla nattoo ba mu génn bitim réew nekk ci réew yoo xam ne daanaka lañ fay dund du ak lislaam gu xaw a doy waar la ak dund jamono gu doy la su boobaa yow yooy am sa passeport bu wér a wér ak sa gëm yàlla bu wér a wér doyloo yàlla wéeru ci moom te di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu doole la dimbali ci sa passeport boobu ak sa taxawaay boobu soo ko defee rek yàlla moom euh, day na mën a ànd ak yow di jàppale ci lu bëree bëree bëri beneen laaj bi ci topp soxna mbenn mbay moo ko fi yónnee ñu di ko siyaar bu baax a baax moom itam ndeysaan ku bëgg lu baax yittewoo liggéey bi lool moom dafay laaj doa un xaasun lil walidayni wa doa un xaasun lil ajdaadi wa doa un xaasun li jamil musa muslimina nee daal moom day laaj lan daal nee moom dafay def su jullee ñaan ak ñaan goo xam ne gii da koy def spécial ngir ay ñaari waajuram defaat geneen ñaan goo xam ne gii da koy defal ay maamam defaat geneen ñaan goo xam ne bii da koy defal jullit ñëpp muy laaj nag ne loolu ni koy defee nga xam ne dina jël temps te dina xaw a bari ci boobu ba jël ci temps daal. muy laaj ndax ñoom ñëpp mën na leen a boole di leen defal genn ñaan wala comme noonu ma koy defee rek maanaam noonu la war def dañ ko naan yumkinu wa yajuuzu du'aa'un waahidun li jamii haa'ulaa'i izaa nawaytihi fa innama al a'maalu binniyaati wa innama li kulli imri'in maa dañuy wax soxna si ne ko ñaan yoo nga xam ne da koy ber gi nga jagleel ko say waajur yi ci des say maam yi ci des muy jullit ñëpp ñoom ñëpp mën nga boole genn ñaan googu fasal leen ko ci yéene leen ko su ko defee ñoom ñëpp cay jot ñaan googu ngay def benn boobu ngay xam ne da nga koy defal say waajur soo ko defee nit defal naa ko sama waajur yii ak mbooleen jullit yi nga xam ne yii ñoo nekk barsax bu dee waa barsax nekk ak ñu leen def ak ña jullit yi leen fay fekk rek su ko defee dañ doon ñaan bu matal boo xam ne bii jullit yëpp dañ ci daal di mën a jot te it dina àgg ci ñoom ñëpp ndax yàlla moom moo man lépp moo sañ lépp moo xam lépp te li nga yéene ci sa bi ñu ne loolu rek maanaam jëf jooja moom mooy taxaw loolu nga yéene ne maanaam ñaan gi ñaan naa ko yow yow yàlla ñaan naa la ko yàlla na ko nungu gën ci nungu te jotalee ko mboolem jullit yi nga xam ne ñi dañoo nekk barsaax ak jullit yi nga xam ne ñoo di fekk waat barsaax yépp yéene naa leen ñu jot siol bi bu ko defee boo waxee loolu ñaan googu dina leen matale ñoom ñépp waaw incha allah waaw baax na jërëjëf yeneen laaj yi topp Sëriñ Badara Njaay moom itam moo ko fi yónnee ñoo koy siyaar bu baax saas Euh, moom itam wax dëgg yàlla jàmbaar la ba euh, Badara Njaay dafay laaj xokkumul laay bi kuratil xadam daal dina daal bu ko defal ak leer ci euh, wàllu football maanaam lan mooy atteb football football maanaam ma dañ koy tere wala dafa anam wala lan la doon fii ne aj mu naan kullu lahwin yaxsulu fihi saddu an zikrillahi wa ani salaati foofu moom nga woon waaw dañu naan lépp loo xam ne li am fala boo xam ne bii fomoo bu ci ñeen ña cay foo nekkee dina leen gàllankoor bay dootuñu tudd yàlla ba dootuñu jaamu yàlla fàtte yàlla waaye itam dina leen gàllankoor ba waxtu julli jotee duñu julli ñu ne fomoo ko tere tushxilu naas an taatillahi ak it lépp loo xam ne lii daal day gàllankoo nit ñi ba duñu jaamu yàlla ci wàll fa yooyu ne ne yépp dañ koo tere te bu ñu nee charia moom koo tere mooy dafa araam ñu ñuy wax euh, loo ne mën nañ koo tegtaloo mooy dañ naa yàlla na ne yaa ayyuhal lazina amanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum min amali sheytaani fajtanibuuhu laallakum tuflixuun yàlla dafay wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm day nga xam ne lii ñuy wax sàngara ak kart ak euh, ay xërëm ak ay euh, bidaa yooyu ñu daan def yu mel ni caaxaan yooyu ñu ne yooyu yépp euh, sobe la soo xam ne si ñu ngi bàyyi ko ci ci su ko defee ay boobu ñi koy firi euh, dañu naan léegi jéem yàlla tudd na ci euh, loo xam ne lii ay caaxaan la euh, te caaxaan yooyu day mën a dajale lépp loo xam ne lii nit ki dajaa nekk muy wàllu foom àdduna mii te mu di ko gàllankoor ba bu waxtu julli jotee du ko def du mën a tudd yàlla ci jamono ji da koy fàtte te it anam ngañ koy defee day fekk nañ koy defee euh, lislaam maanaam ca colin ga lu mel ni seen dëgg-dëgg yi nañu war a muure seeni awra duñ ko def euh, su boobaa kon dañ ci daal di mën a dugal foot ba nga xam ne moom kon moom itam day bokk ci nga xam ne yii kon dañ koy tere ndax loolu lay wax naan fal muxaamaratu tulhi an naas kadalika kuratul xadam ne na gis nga lu mel ni carte gam wax fee nee na ña ca faso nekk ñu ca nekkee maanaam dootuñu fàttaliku yàlla dootuñu tudd yàlla te ca la nekk ba euh, bu waxtu julli jotoon sax duñu dem julli ji te nee na boo ko den nattaleeg football maanaam ñoo yem dong ab àtte ci li nga xam ni noonu lañ koy dundee kon dafay wax ne iza kaana laaibuna biha tusxiluhum anis salawaati xarumat alayhim nee daal football ña koy def su fekkee ni day dox seen digganteeg julli day dox seen digganteeg jaamu yàlla ne ne su booba day araam ji ñoom amma law qudira wa wujida qawmun yalaabunaha doxan li tamrini wa quwati al ajsaami fi waqtin laa yaqru min alsalaati wala yasuddu an alsalaati wala an asbu al ibaaxatu ñun nag football moom buñ ko doon defee ci anam gii maanaam nee na loolu moom lu ñu dagana lan la muy ne na buñ mënan eh, am ña koy def nga xam ne dañuy football ñu di ko def lu mel ni waxtu yoor yoor nga xam ne jege ñu genn waxtu julli te balaa jullee jot ñu def ko ba pare nga xam ne nag football boobu ñu def dañ cey jublu entraîné maanaam defar aw yaram ak eh, wut ak wér ne ci waxtu woo xam ne bii jege ñu ak julli te it eh, du tax buñ ca nekkan ba julli jot itam maanaam ñu continuer ca bañ koo bàyyi ne bu boobaa kon day daal di ndax bu boobaa tàggatu yaram rek la defar yaram te bu boobaa loolu moom euh, lislaam dina ko maye waaye dina lakkinal aana al mushahadu min ahliha annahum saddatuhum an kulli xayrin wala iyaasu billah nee na nag bu dee ci wàllu football wax dëgg yàlla niñ koy gisee ci suñ jamono jii ni ñu koy dund ci àdduna bi ne euh, lañ cey gis daal mooy ña nga xam ne nii dañoo ne ci wàll woowu dal moom euh, football boobu dox na seen diggante lépp loo xam ne aw yiw woo xam ne bii wuñ doon nar a ci jaamu yàlla la ndax ne ne moom buñ koy jàngat jamono ji euh, lépp loo xam ne ak jaamu yàlla rek muy julleeg ak lu mu mën a doon rek suñ ca xasee nekk ay waxtu yu baree bari dina leen jaraw te it geneen jaamu yàlla it maanaam du nekk ci seen xel sax bañ di ko ci jéem a boole te ne loolu dafa matale ña nga xam ne ñii ñoo koy def ca terrain ba ak nga xam ne ñooy dem ca terrain ma di leen seetaan ba ci ñi nga xam ne ñi dañu ne biir kër yi sax yor ay télévision di leen seetaan ne loolu lépp ñoom ñëpp euh, ñàkk julli googu ñàkk a jaamu yàlla googu da di gàllankoor bu doon fitna ju rëy rëy ju yaatoo yaatu joo xam ne ji dafa matala ñu baree baree baree bari mu ne looloo tax kon moom moom xeetu football yi ñu ko football fi mu ne ak waxtu yi ñu koy defee ak koy defee wax dëgg yàlla euh, da koy mu ne fa zahiratul aan min xaaliha annaha muharramatun daal football daal ñu koy defe léegi bu ñu ko xoolee jàngataat ko ci lépp loo xam ne lu sharia ak la dañuy gis ne kon football léegi moom dafa araam dañ koy tere te lu ñu bañ la loo xam ne bii laay juusu taatiha ne ab jullit sax waratu ko def kon eh, loolu daal ci wàllu football moom nañu xam ne jamono jii ñu nekk ni ñu koy defee moom maanaam dëppoowut ak ni ko lislaam bëggee kon eh, nekk loo xam ne wax dëgg eh, doonul loo xam ne di daal ab jullit war na ko yittewoo ba di ca yëngu mu waxaat itam ne beneen laajam mu ne matta wa masa yanqulu wudu alxusli sëriñ Badara Njaay di laajaat ne njàpp mi nga xam ne mi nit da koy jàpp suy sangu farata njàpp moomu kañ lay toj ak lan moo koy toj waaw jàpp moom jàpp la rek mel ni njàpp mi la rek li nga xam ne dangaa jàpp ngir julli waxtu julli di bëgg a jot nga jàpp mook boo doon sangu jàpp njàpp moom rek ñoo yem euh, saa bu tojee rek maanaam mooy toj na waaye itam liy toj njàpp mi yële rek maanaam mooy toj njàppam sangu njàpp moom li koy toj leen dong la na waa xedru du du dara lu yàq njàpp mi nga xam ne mi da ko doon def di waajal julli te sangoo boo doon sangu farata jàpp njàpp moom it du tojee ni mooy toñ na rek lu ko ci yooyu mooy toñ na waaw kon loolu mooy beneen laaj bi nga xam ne bi moo ci beneen laaj bi ci toppaat muy soxna Ndey Fay moo ko fi yónnee moom itam ñoo koy ziar bu baax a baax muy laaj wàllu takki téere yi ñu def ci yaram ak ay fas yooyu nga xam ne dañ koy takk ngir ne dañ ciy faj dara waaw dañ ne ar ruqyatu sariyatu jaizatun wa mubaaxatun bu fekkee ni euh, wàllu téere yooyu ak yooyu nga xam ne dañ koy def lu ay fas bu fekkee ni ñu teg ci alxuraanul karim la maanaam alxuraan ay aay alxuraan yu ñu bind la ñuy wax aay alxuraan yoo xam ne ci alxuraan la jógee di ko tufli ci ay fas fas noonu di ko fas euh, wala loo xam ne lii ay ñaan yàlla ay ñaan la yoo xam ne Seydina Muhammad da ko doon def su boobaa yooyu moom dinañ ko muy jullit bi mu di ko mën a jëfandikoo ngir di ko fajoo ak di ko musuloo waaw wa hiya ma bi kalaamillaahi la wax ne ne yooyu daal li ci sariyam maye mooy loo xam ne ni dafa bokk ci alxuraanul karim eh, wax yàlla wala bokk ci turi yàlla yi ak melokaani yàlla yi wala loo xam ne dañ ko jële ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi mu doon ko ñaane ak di ko moose loolu daal loolu moom bu dee ay téere la ñu bind ko ci këyit euh, dañu koy fexe ba ëmb ko ci loo xam ne lii maanaam sobe du ko laal bu ko defee su boobaa dinañ la ko may bu dee jëlee ci mu daan ko ñaanal ñaane su boobaa it dinañ la may bu dee lu ñu wax di ko fas la wala ñu koy bind dinañ la ko may waaye lu weesu loolu nag euh, bu dee ni leneen la loo xam ne lii moom dëppoowut ak alxuraan dëppoowut ak sunna Seydina Muhammad da xam ne mën nañ ne yeneen la doon lay doon yoo xam ne nit ki mën naa am ci jinne seytaane rek lu ko seytaane jinne ci la ko jële rek su boobaa moom dañ koy tere jullit bi ndax sallallahu alayhi wa sallam dane laa ba'sa bi ruqaa maanaam tekkun shirkan Seydina Muhammad ne ne ah, tekki téereeg ay fas yooyu daal lislaam terew ko du dul ni dañ caa def loo xam ni ak bokkaale yàlla la loo xam ne nag ak bokkaale la mooy di jël yeneen xeet yoo xam ne yi euh, lislaam lu ko lu mel ni ay béjjën ak ay yu deme ni ki yooyu ak loo xam ne dañ koy def ay fas yoo xam ne yii la mel ne ak jat ak ak yooyu lañ koy defee ci yooya moom dañ koy tudde jullit bi kon yàlla yàlla doon defal taw bi yow am

tawa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 sëriñ bi de sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey